il a fait trois heures de discours wax ak askan wi mais fi nga doon xaar ci li ëpp solo ñëw fa li solo jamono jooju lan la woon. waaw dafa am damay càmbar d'abord li mu wax. ak li mu ci juju dafa jël bi ci ëpp solo mu ne moom idolam ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom lay roy. Mhm. joxe parallèlement ay explication yoo xam dafa nuroog l'islam dafa tëkk dafa jël boppam teg ko ci côté yonent bi référé ci jël parti Pastef. référé wu ko ci l'islam mu ne Seydina Mamad bi ñu ko persécuté biir Makka dafa daw dem Madina. Mhm. et bi mu demee ba ba matal dajal dafa négocier pacifiquement ñibbi si dox. loolu la bëgg wax Pastef ak ñi ko incarné bi ñu bi leen di Macky Sall di sonal dañoo dem kaso. Mhm. mais bi mu demee ba xam ne moom moom réew mi mu négocier ak Macky pour ñëw jël réew mi mais la différence différence moom ak Seydina Mamad mais Seydina Mamad ci jom ja ak fulla ja ak fayda ja ak détermination ba mhm. saa yi ci aj Makka bu ñu xëyee day tabaski donc bala maa gëm ni moom li wax dëgg ci moom samedi la Sénégal di Arafat moom bu dimanche na tabaski ba pare wane ko mu leer. mais est-ce que waxee ci le cadre politique ak ak ak ak xol bu rafet parce que aussi nee na moom képp ku ko tooñ mën na la baal mais ku tooñ Sénégal ku jël àllu Sénégal di nga ko fay te loolu aussi jaadu na je pense. c'est pas ça l'explication et la vision et la voie qu'il a tracée ce Seydina Mohamed dafa souffrir avant de jot ci mbir mi et mbir mi day rester demeuré. Mhm. moom dafa souffrir avant de jot ci mbir mi mbir mi day rester demeuré Sénégal vient de signer sa première dictature hmm. en 2024 pas sur l'ère euh, Diomaye Faye une fois de plus pas sur l'ère Diomaye Faye mais avec Ousmane Sonko